السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكي جليد مبكي تربي نجلين دنيو فين باخونيو مي دار القدس. كي نديقل السرين محمد المنتقى مبكي دخل في جنرال دو موريد كي تواي أحمد المختار mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Mouhamadul Moustapha Serigne Cheikh Mbacke Madina ak Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa guy mbind su ngeen gisee jataay bi mel na ni mooy jataay bi nga xam ne moom la ñu baaxoo def at mu nekk ngir fàttalikoo ko Serigne Touba radiallahu anhu muy bis bi nga xam ne moom la Serigne Touba bàyyi ko woon ci njaareem ñëw fii ci Touba dëkkaale ak boromam bis boobee nag lañ leen di fàttali mu war a yemoog fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre bi. mbokk yi dañuy daal di jox kàddu gi rek Serigne Ahmadou Ndiaye. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi. ci ndigalul sunu kilifa gi toog Serigne Ahmadul Muxtar yuy fàttali ci ndigalul jëwriñam di kilifa ak yoon wi Cheikh Mouhamadul Muntaka bis bi nga xamante ne nii baaxoon nañ leen ko fàttali. muy màggaluk Tuuba di bis bi nga xamante ni nii la Cheikhul Xadim waxoon Cheikh Mouhamadul Moustapha ni ko su ngeen yaa fuusee ba dem ma Tuuba dana mel ni demaluma leen woon fenn guddi googee di ñaar fukki guddi ci aw tamxarit sëñ Moussa waxoon ni juboo nag boroomam ci képp ko fi fanaan set wecc ci ay bàkkaar yi jàng alxuraan jàng xasida istixfaar salaatu ala nabi waaye am yi dimbali ñuy néew doole boroom xam-xam yi laa biire ñu xamut jokk ak bokk yee salaat ndigali Sëriñ Tuubaa fas nañ ci yéene amal nag ay jataayu waxtaan ngir fàttali ni sëñ Muhammadul Mustafaa daan yare wane it ay exemple ci ñi mu yar waxtaan yooyu danañ ko ubbee ji guy mbind insha allah ak yenn ci bunt kër yi njaboot cheikh mohamadul moustapha yi danañ amal itam exposition bi nga xamanteni ni baaxoon nañ ko amal ginnaaw bu suba la màggal ren ñu koy def ci jàmbaari sëñ tuubaa ja di sëriñ daaru xasan njaay doon model ci ab talibé doon model itam ci ab jullit ni mu war ci sàmm ormay danañ amali itam mbale mi xam ne baaxoo nañ daan ko def di ko barkeloo itam ca jeexitali Cheikh Mouhamadul Moustapha yëm daan taxawoo bis bi le 13 septembre di ajjuma ji sës ci màggal sëñ baa ngi ciy woo mboolem taalibe yëpp ñu ngi soññ mboolem ak turandooy Cheikh Mouhamadul Moustapha yi ñu ngi leen di soññ fu ñu fi man di nekk sëñ bi daal mi ngi soññ njaboot gépp bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn ñuy yëkkati suñu kàddu ci turu Cheikh Mahamadou Moustapha mi nga xam ni mooy sa jëwriñ ji la nekkal ci njabootu Cheikh Mahamadou leen Barak ak guy mbind xam naa sax euh, suñu xasee ñëw ci sa wet suñu kàddu dafay dal di dugg ci sa biir kàddu waaye ginnaaw ndigal la fokk ñu jëfe ko waaye kàddu gi moom benn te lépp mi ci yow kon nag Cheikh Moustapha di soññ rek mboolem bokk yëpp ak taalibe yi ni nga xam ni ni lañ ko baaxoo def mooy niñ ko dundale fii ci Darou Khoudoss incha allahu noonu la joxe ndigal ñu fas ko yéene dundale noonu ci fépp foo xam ni kër Cheikh Mawlana leen Bara nekk na fa rawatina fii ci Touba Guy Mbind kon mu ci soññi ñëpp mbokk yi ak taalibe yi ñu ànd dundal ko ndax xam ngeen ni Cheikh Modou Moustapha radiyallahu taala moom mi ko jëkk a woote am na lum ci waxoon noonu am na ci juboo ak digganteem ak boroomam nga xam ni képp koo xam ni da ñëw yeesal sa pas-pas ak sa yéene ni ko sëriñ bi soxlaa nga dundale ko fanaan ci dëkk bi incha allahu di nga set wecc ci ay bakkaar ni bis bi nga gane woon àddina kon fu ab jullit nekk loolu jar na nga bàyyi say soxla ñëw fi ngir am jéglu suñ borom moo tax sëñ Moustapha nag di woote ak di soññee mboolem taalibe yi. ak bokk yi ñu dundale ko noonu nga xam ne ni la ko ko tedd ki soxlaa ñu ko dundale ci njàngum alxuraanul karim ci dang xasaayit sëriñ bi ci tudd yàlla ci julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf def ay istixfaar loolu la Cheikh Moustapha wax ne suñ ñëwee rek sëriñ bi ñu woote ko di fedli lépp nag muy taalibe gi ak kilifteef gi lépp mi ngi koy fedli fedli waale njaboot gépp di jébal waat boppam fas yéene sax ci si ndigal guddi ak bëccëg rek incha allah jërëjëf mag njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha gépp ak njabootu Cheikh Mouhamed Lamine Baara xadimu rasul gépp dajaloo ci sunu ginnaaw wajur di sëriñ Ahmadou Makhtar mu koy xoolee jëmmi Cheikh Mouhamed Moustapha te mat ko sëkk euh, ñooy yëgle bis bii nga xam ne mu ngi am incha allahu euh, fukki fan ak juróom-ñeent wala ñaar fukki fan ci weeru septembre wii ñu jublu ñu fas ko yéenee defe nag fii ci daarul xudus njabootu Cheikh Mouhamed Moustapha gépp kër yëpp teew kon di bokk bokkitam liggéey boobu ci njabootuk Serigne Touba gépp ndax le tambalé Cheikh Mamadou mustapha ba fi Serigne Touba jógee mu wuutu ko ci wuutinu jafe wa wu sello wa ba lépp ak si fi tey lépp rafet mu ànd ko ak rakam yu tedd yee Cheikh Mamadou fadil ànd ko ak Serigne Abdoulahi Lahad Serigne abdul Khadir Serigne saliw ak seen rak yu tedd ya ñëpp bokk ci liggéey boobu ba turaas bi egsi fii tey alhamdulilahi rabbil alamina kon euh, njaboot gii ñu ngi koy bokk ak ñooñee njaboot yooyu yëpp ak umal islamiya bi yëpp di leen woo ci bis bu tedd bii ci daarul xudus nga xam ne mooy ñibbisi si Serigne ci Touba ci dëkk bu mu gënoon a fonk. nga xam ne am na fanweeri at ak ñett ak lu topp ci loxol tubaab bi muy dëkk boo xam ne moom la gënoon a bëgg te sunu borom natt munta ñàkk mun a too ko ci munu fi woon a nekk. mooy ba ko loon kon la ko loon it mu ko daan wax mooy sunu borom defal bis bi muy bis bi gën ci man mooy bis bi may ñëw ci yow kon bis bi yaakaar naa ne bu am solo la ñuy sant bu baax itam di boole ci nga xam ne njaboot gi moom itam mu ngi ciy liggéey liggéey bu rafet muy Serigne Moustapha Mohamed moom Serigne Mbacké Soxna Lo moom it Euh, am Pastef lool ci liggéey bi ñu ngi leen ci woo góor ak jigéen mag ndaw jullit yëpp umal islam yëpp yëpp kon euh, nañ ci yàlla yu bëgg jàmm ñu tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim eggalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ bi mi ngi fàttali bés bu mag bu nekk ci suñu kanam ci fàttali googu gi ñi mu bokkal sëñ Tuubaa mi ngi tàmbalee ci kërug boppam gii di Daaru Xuddoos ba ci kër Cheikh Mouhamadul Mourtada bàyyiwul kenn ci diggante bi di ko fàttali bu baax itam mbooleem njabootu sëñ Touba li tàmbalee ci soxna Faatija Mbacke ba ci soxna may Maymunatu Mbacke leelatul xadar ñi ci diggante bi ñëpp tàbbi nañ ci biir ñu mu ngi koy fàttali it bokki sëñ tubaa bokki boppam yi li tàmbalee ci kër sëriñ Moor Jaara mi mu bokkal lépp ba ci kër sëñ ma Masamba bàyyiwul kenn ci diggante bi mu ngi ciy soññi jullit yëpp di ci soññi taalibe yëpp rawatina nag Euh, mbooleem seex yi nga xamante ni dañoo aju ci daaru xuddoos ñoom bis bi seen bis la kuy ñëw na leen fi fekk kuy dem na leen fi bàyyi mi ngi koy fàttali itam euh, jumtukaay sëñ Touba yi di kër maam Cheikh Ibra te sëriñ Cheikh Jëmb Fall nekk ci bopp bi ak lépp lu aju ci moom sëriñ bi nee na mi ngi lay fàttali bis bi mi ngi koy fàttali it mboolem ñi bokkal réew mi ñëpp te di ci jiital ki nekk ci boppu réew mi ak mboolem ñi koy jàppale ca la muy liggéey bàyyiwul kenn mu ngi ci soññi itam di ko fàttali mboolem ñi mu bokkul diine ji muy turuqu suufiyee yi ci Sénégal fu ñu fi mën a nekk sëriñ bi mi ngi leen di fàttali bis bi te di leen ci soññi te képp kuy ñëwit na nga bàyyi xel ni sëñ tubaa wuy ji kuy wuy sëñ tubaa nag am na noo war a mel noona taaliba bu nekk xamal na ko boppam ku jëm tubaa na xam ne day waajal boppam xam ne sëñ tubaa lay wuy ji di leen fàttali bis ne moom lañ jublu màggal gi nga xam ne moom la sëriñ bi muy sëñ Touba bis bi nga xam ne bii ci la ñu bisee Touba bis boobu la ñuy fàttali ñëpp di sàkk ñëpp ku mën a teew teew ci ku mënta teew nga def li nga xam ne moom la sëñ bi gënoon a fonk muy alxuraan ku teew si na nga ko jàng ku mënta teew am ngànt mën laa teew it nga jàng ko fa nga nekk jàng ci xasida sikrullahi istixfaar te moytu yëpp nga xam ne tere nañ ko ci dëkk bi muy muy muy li lislaam tere ku ñëw da nga góorgóorlu ci sàmm li nga xam ne moom lañ digle moytu li nga xam ne moom lañ tere. maa ngi wax ñëpp di ne màggal gi màggal gi sëñ Tuubaa moo tax ñu def ko kon yëpp yëpp ñoo ko bokk. ku teew na nga si ñaanal jullit ji ñaanal réew mi ñaanal lislaam yàlla def jàmm ci réew mi. ak nawet alamina bare tig cant war nanu ngir màggal gi yàlla